à l'heure de la pause information divertissement des sujets intéressants qui vous euh, permettent euh, qui vous permettent vous qui nous regardez moo xam euh, ci seen i téléviseur wala ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi ba nekk euh, première télé euh, digitale lu ci lu ñu fi waxtaane rek mën na leen a jëriñ tey ci midi plus bi tout à l'heure on parlera sport on recevra waa Guédiawaye football club wala football club parce que xam ngeen ni ay fan a ngi ñu ngi ñaawlu yenn yenn ci ay xeetuk ñaawteef yoo xamante ni ñoo ngi koy gis euh, ci wàllu euh, sport nawetaan ba làmb waaye heureusement am na ci ay club yu bëri yoo xamante ni fexe nañu euh, ba kenn xàmmeewu leen ci wàllu violence loolu moo tax ñu fas yéene recevoir bu ca kanamee tuuti waa Guédiawaye football club ils sont en train de préparer lancement wu seen site web naka le club bi di liggéeyee ak lu tax ñu toll ci professionnaliser seen club yi ba mën tolloo ak club yu mag yi nekk ci ci àddina on en parle tout à l'heure ak euh, ki nga xamee ni euh, moo leen fi nar a teewal puisqu'on est en train de préparer un grand événement euh, ca fi nga xamante ni moo di Géejawaay ak Géejawaay football club et puis tey on parlera ceebu jën oui démb bi ma xëyee maa ngi leen di wax ni musique gu Congo bi ñu tuddee rumba dafa bokk ci patrimoine culturel immatériel bu UNESCO faf nag ci ngoon gi ñu dégg ni suñu plat bile di ceebu jën def nañu ko moom itam patrimoine euh, ginnaaw ay weer yoo xamante ni homme de culture yi nekk Sénégal yëpp ñu ngi doon xeex euh, di euh, joxe dossier ngir ñu mën jël suñu plat bi la nga xam ni àddina yëpp lañ ñu koo bàyyee muy ceebu jën mu doon patrimoine bu UNESCO donc on va en parler en première partie entre autres parmi ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon défendre dossier bu Sénégal ca Nations Unies ak waa UNESCO bokk na ci docteur Massamba Gueye nga xam ni bëgg Sénégal weesul li mu nekkee kàddu yoo xamante ni séq na ko ak euh, sunu euh, natango yu rajo Futur Média waaye itam am na document euh, bu ñu leen di waaj a tegal jëm ci présentation wu ceebu jën et puis Youssou Ndour xam ngeen ni lu mu woy téere na téere la plutôt woy na ba woy ceebu jën on écoutera extrait au Bercy Grand Bal c'était en 2013 et puis parmi sujets yi on va revenir ak ki nga xamante ni moo di euh, Demba Balde Demba Balde moo jur euh, xale bi nga xamee ni euh, mu ngi am fukki at ak juróom moom nag da doon def éducation physique ñu tuddee ko EPS faf gaañu ca CM bu Wakam papaam nag il est très remonté contre le personnel du collège il dénonce lenteur boo xamante ni am na ci secours yi ndaxte sautage bi paraît-il que yéex naa ñëw waaye juru gone googule nga xamee ni moo doon sport fa faatu naqaram wax na ko ci suñu micro. daañu ko déglu xam naa bu ca kanamee tuuti et puis fan yëpp ci wàllu actualité mënul ñàkk donte am ngeen journal euh, bu ca kanamee ak Fatidien bu 13h jotee waaye ñu nit euh, dañuy cofantu euh, ci lépp loo xamante ni mën na leen a soxal ci wàllu actualité on parlera de cette affaire trafic de passeport diplomatique alors ginnaaw député bi di Amadou Sall ak Boubacar Biaye yeneen notamment ay agent yu nekk ministère des affaires étrangères ñoom itam ñu ngi leen di naa bu ca kanamee tuuti ak ki nga xamante ni moo di Marcel Farba Maron et puis évidemment on parlera ceebu jën wax naa ko léegi euh, d'ailleurs sax ceebu jën laa leen bëgg nuyoo ngeen remonté wu tuuti ak Youssou Ndour rappelez-vous euh, c'était en 2013 Bercy la woon euh, ca la woyoon woyam bu rëy ba ba mu yàgg rek daal di dakkal li nga xamee ni moo di spectacle bi togg ceebu jënam si vous vous rappelez bien pour la petite histoire en 2002 Youssou amoon na livre boo xamee ni génne woon na ko tuddee ko Sénégal la cuisine cuisine de ceebu jënu yaayam yaasa yaayam ak yi nga xamante ni ndeyam euh, yàgg na ko ko toggal mu màggaale ak moom Youssou Ndour defoon na ko ci livre c'était il y a quelques années quelques années plus tard mu woy ceebu jën bi mu woyee ceebu jën quelques années encore plus tard ñu jël ceebu jën boobule défendre ko Nations Unies UNESCO plutôt euh, ba euh, ceebu jën boobule depuis démb tout les télé on vous montrera euh, waa France li liñ ci wax dinañ leen wan télévision yi làkk anglais liñ ci wax dinañ leen wan euh, télévision yi nekk France liñ ci wax en tout cas on fera le tour de quelques médias pour vous montrer que euh, lu ndaw mën naa jaay dëkk et on a tendance à euh, vouloir euh, ay mbir yoo xamante ni dafay jaay destination Sénégal donc on parlera ceebu jën euh, ci première partie bu midi plus bi laataa ñu leen di tegal Bercy boobule ak Youssou Ndour ak Super Étoile ci ndimbalu Apulaay réalisateur de l'année j'aimerais vous rappeler que xam ngeen ni période bi période du fête la bu ñu nee fête nag xel dem ci Noël bu ñu nee Noël xel war dem ci xale yi bu ñu nee xale yi ak Noël xel dem ci Père Noël et quand nag euh, xale yi dañu ko bëgg parce que euh, dañoo gëm Père Noël te euh, segam mag ñee bëgg ñu leen di betteek ay cadeau waxatuma la ak xale yi. regardez ce coin Apulaay tu nous montres carrément ci écran bi Kids Palace li nga xamante ni ay at ngi mu jagleel ko parents yi pour seen ay cadeau Noëlu doom ren nag dafa tombe Noël bi dafa tombe ak biir Kids Palace am boutique bu bees bu ibbi tudd Jouer ça joue Dakar. ça joue, ça va jouer, puisque si vous partez là-bas avec vos enfants, ils auront la possibilité de jouer. Donc ça va jouer ak euh, Kids Palace grâce ak euh, magasin bi ñu ubbi euh, ca biir Kids Palace tuddee ko jouer ça joue Dakar alors peu importe seen budget mën ngeen kontaan ci la ngeen fa exemple démb maa ngi leen koy wax bu ngeen amee ñeenti téeméer rek euh, mën ngeen am cadeau boo xamante ni ni dina idéal euh, pour faire plaisir à vos enfants ba noppi itam en plus de li ngeen mën a jënd comme cadeau pour faire plaisir à vos enfants am na tirage au sort tombola boo xamante ni dañu koy organiser sur place maanaam bu ngeen demee fii ba le 25 décembre am na tombola bu mag ak tirage bu ñuy organiser euh, ci magasin bi nekk biir Kids Palace tudd jouer sa jou Dakar parents yi ak yi dinañu mën a gagner par exemple benn hot euh, mooy euh, mbuus mi Père Noël di def euh, ay cadeau ci biir nag mën ngeen ci am ay cadeau un gros sac euh, plein de cadeaux euh, valeur u 65 000 valeur u 40 000 valeur u 25 alors euh, mbir mi nag c'est ouvert à tous les clients yuy dem Kids Palace rawatina ci boutique bi nekk ci biir tuddu jouet ça joue Dakar alors euh, xale yi ci mën a bokk nag il faut que ñu âgé am moins de 12 ans euh, ba noppi itam euh, am na bulletin de participation yoo xamante ni mu ngi ci biir magasin bi foofee nga xamante ni moo di jouer ça joue Dakar nekk biir Kids Palace bu ko defee bu ngeen récupérer exemplaire bi ak flyers d'ouverture magasin bi mën ngeen remplir bind seen tour seen sant seen date de naissance peut-être adresse postale numéro de téléphone et puis ngeen déposer ko buntu magasin bi euh, avant le 25 décembre donc saa yu ngeen demee Kids Palace rek mën ngeen récupérer formulaire bi remplir ko pour seen doom et puis ko ci urne bi ça vous permettra de gagner sac bu mag bi nga xamante ni Père Noël moom lay def ay cadeaux pour vos enfants des cadeaux euh, yu am valeur bu toll ci soit 65000 wala 40000 ou même 25000 alors pour yéen ñi demagul dem leen c'est le moment ou jamais on est déjà le 16 xale yi déjà xam naa xam nañu euh, seen ay cadeaux et puis marque mag yëpp mën ngeen ngeen ko fekk fii du ma lim ndax ku lim juum mais yéen ñiy faral di bégal seen doom xam ngeen lan mooy euh, marque bu baax euh, pour cadeau de Noël alors Kids Palace nag mu ngi nekk zone de captage côté EMG Euh, seen numéro de téléphone je vous le donne si vous avez de quoi noter di 76 223 34 37 wala ngeen woote ci numéro fixe bu Kids Palace euh, di 33 825 85 84 am ngeen possibilité aussi découvrir tout ce que Kids Palace a comme gamme de jouets pour enfants ci seen site internet di www.kidspalace.com voilà donc je tenais à ouvrir cette parenthèse euh, concernant euh, boutique bile euh, nga xam ne ni moom la ñu ibbi biir Kids Palace tuddee ko jouer sa joue Dakar joyeux Noël par anticipation ceebu jën laa leen di nuyoo Youssou Ndour moo ko toggoon Bercy 2013 ça nous rappelle beaucoup de souvenirs laataa ñuy célébrer ñun itam comme presque tout le monde ceebu jën suñu plat bile nga xam ne ni def nañu ko patrimoine ak UNESCO. everybody. dafa ñuul dafa yëngalal gitaar gi xeebu jën Penda Mbaye est-ce que yéen a ngi fàttaliku euh, Bercy bi c'était en 2013 oui et avant 2013 moom ci boppam Youssou bindoon na Euh, benn livre tuddee ko Sénégal euh, la cuisine de ma mère naa leen doon affiche su livre bi euh, ci kanam tuuti fekk ñu xool archives yeeg yooyu ak naka la mbir mi di demee mais hier le monde entier mu ngi waxtaanee Sénégal ndax ceebu jën bi nga xamante ni dañu ko def patrimoine immatériel bu UNESCO on a proposé un document réalisé par équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo doon défendre Euh, dossier bu Sénégal ça fait presque une année euh, ñu doon euh, waxtaan ak waa Nations Unies pour que ceebu jën bi nekk patrimoine immatériel bu Nations enfin bu bu UNESCO voilà donc ceebu jën Euh, euh, depuis hier d'ailleurs euh, tout le monde en parle moo xam euh, média yi wala sax réseaux sociaux yi nañ leen wan document yi ci kanam tuuti mais j'aimerais juste euh, vous présenter loo xamante ni mën na leen a soxal yéen ñiy préparer grand bal VIP le 25 décembre ak Youssou Ndour ak Super Étoile jot na dem defi visite fi nga xamante ni foofu la ñuy amalee spectacle 25 bi donc li ngeen di gis nii Euh, da ngeen di am euh, possibilité ngeen jënd euh, ticket ak seen téléphone portable voilà mbir mi nag mu ngi tudd teew ticket. pour le moment duma expliquer gum dara ci teew ticket ndax service la boo xamante ni désormais dafay permettre waxuma rek artistes yi mais képp koo xamante ni yaa ngi ci genre événement yi nga jox possibilité facilité d'achat ticket à tous les Sénégalais par exemple affiche bi ngeen di gis ci écran bi est-ce que xam ngeen ni bu ngeen jëlee seen téléphone portable ngeen dugg ci appareil photo bu ngeen tiimalee appareil photo bi ci écran bi QR code bii ngeen di siin mooy to moom mi ngeen di seen mooy tomb tomb noir blanc yii nii euh, QR la bu ngeen ko tiimalee euh, seen euh, appareil photo immédiatement da ngeen di am possibilité jënd ticket grand bal VIP pour le vingt cinq ce qui veut dire que man nga tëju sa néeg c'est-à-dire xaw ma fan ngeen ñuy seetaanee soit seen bureau wala seen bërëbu liggéeyukaay wala ci kër yi bu ngeen ko skane immédiatement vous avez toutes les informations concernant euh, li nga xamante ni euh, mooy euh, ticket bi ngeen jënd pour fekkee grand bal VIP le 25 en attendant bien entendu le 1er janvier alors Euh, teew ticket nag euh, defe naa li mu mën a faciliter euh, bëri na on on va détailler ci ay services su teew ticket mais pour le moment je vous conseille ci moment bi may wax ak yéen prenez vos téléphone portables ngeen dem ci seen appareil photo ngeen scanner QR bi bu ngeen ko scanner immédiatement ngeen jënd seen ticket. non seulement bu leen neexee geen fay ak euh, carte bancaire carte bleue carte euh, je ne sais quoi voilà euh, autant autant de cartes ak cartes yu ngeen mën ci am mën ngeen ko jëndee seen ticket grand bal mais en même temps mën ngeen jënd grâce ak service de transfert d' argent yi nekk Sénégal Kulim Dioum euh, Orange Money ñu ngi ànd ak Orange Midi Plus Wave tout ça euh, bu euh, scanner ak application yooyu la lii ngeen di gis grâce ak Tew Ticket vous serez les premiers à avoir une place parce que chaque benn achat benn place la donc vous avez la possibilité d' acheter plusieurs tickets grâce ak Tew Ticket donc les billets sont à vingt cinq mille c' une soirée VIP le conseille li tax nag ma ci insisté ba ba tey maa ngi naan leen bu leen woo kenn kuy liggéey Futurs Médias di ñaan ticket ndax ñun sax mënuñu am ticket pour suñu bopp donc acheter c'est très simple c'est très pratique ak fu ngeen ti nekk ci àddina Sénégal voilà fu ngeen ti nekk lii di affiché wu euh, ci écran bi euh, fu ngeen ko séenati ci euh, écran wu télévision Futur Média acheter directement grâce ak Tew Ticket même dans la rue il vous arrive de voir des affiches yoo xamante ni am na QR code bi ci biir bu ngeen jëlee seen appareil photo rek fu ne mën ngeen fa jëndee li nga xamante ni moo di ticket grand bal samedi 25 décembre Youssou Ndour ak Super Étoile ca place du tout le monde prépare ça demandé au réalisateur en permanence pendant euh, émission bi yëpp fii ba 14 heures et quelques euh, dinañu afficher euh, QR bi ci écran bi ça vous permettra d'avoir vos tickets te kenn du ko voilà jënd sa ticket ni patt moom loolu defe naa dara dàq ko moo gën ngay def délégation di dem ci ay points de vente woo ay livreur xam nga yooyu yëpp c'est pratique c'est cool yàgg nañu ko def mais quand même li gën a simple mooy ngeen jaar ci service bu am solo bi la ñu tuddee teew ticket pour avoir votre place ci grand bal bu Youssou Ndour ak Super Étoile en attendant le premier janvier. maa ni woon ci première partie bi nu parlons ceebu jën oui c'est notre plat national dimb de ñëpp a kontaan xam nga euh, pour un rien euh, sénégalais kontaan ceebu jën c'est tout naturel pour ñu am ko ci suñuy kër ndax saa yu ñu xëyee togg ko. Euh, depuis nag euh, at ngi euh, ay hommes de ak waa ministère de la culture ñu ngi doon défendre dossier wu Sénégal pour ñu accepter ceebu jën mu nekk patrimoine immatériel bu UNESCO ça a été validé le monde entier en parle avant de vous montrer quelques euh, explications et reportages qui ont été réalisés par des confrères de chaînes étrangères j'aimerais vous proposer benn document boo xamante ni docteur Massamba Gueye moo ñuy nettali histoire u Penda Mbaye mi nga xamee ni paraît-il gett ndar ca ndar la fekk baax regardez. solo solo si moo doon wane ne tubaab bi ñëw di fi indi dafa am nu mu bëggoon ñu dundee ko ñun suñuy maam dem jëpp ko fexe ba moomal ko seen bopp di ko defee noo xam ne keneen mënu ko defee neneen. Dans la ville de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, les habitants veillent sur un trésor. C'est ici qu'est née le thiéboudienne ou riz aux poissons. Fatimata Ben Messaoud en est l'une des plus farouches gardiennes. Comme chaque semaine, cette Sénégalaise de 49 ans choisit minutieusement ses ingrédients. Le riz Né ici dans ces quartiers de pêcheurs de la langue de Barbarie, le ceebu-jën est devenu incontestablement le plat prisé des Sénégalais. Un art culinaire et un art raffiné de table, pour ne pas dire du bol. Ce plat, maîtrisé par les Sénégalaises et les Sénégalais, et dont la préparation revient d'abord aux femmes, n'exclut pas les hommes. Ils y ont une place. Les enfants y ont une place. Le Tchéboudjian a un déroulé, plutôt un cérémonial, qui repose sur des aptitudes qui sont transmises de génération en génération. Tchéboudjian bi moom amal sa jën yu baax soo amee sa jën yu baax am sa légume yu frais soo ñëwee da togg sa Tchéboudjian bu neex léegi man bu ma am jën ñooñu damay teg sama légume. teg sama jën nettoyé sama ay jën ba mu set nettoyé sama légume ba mu set dëbb sama roof roof bi nag moom dinaa am kaani am poobar am xorom am laaj am laurier bouillon du du ma ci def jël sama mat teg boyal raxas sama cin ba mu set def sama ay dëw biñ yooyu udon bi sensé ma taalaale taalaale bi moom li ciy am mooy soble yéet xorom ak kaani géej gi moom ñëwagul soo taalaalee ba mu dog nga ñëw sa kàddu teg sa ay légumes nettoyé nga sa ba pare te ba tegoon de côté nga jël boo ñu lugee nga jël sa légume légume bi nag du yëpp nga ciy defandoo da ngay jël karoot bi pulóor bi chou bi ak navet bi moom ngay jiital léegi xuluñe bi ak batancé bi ak géej bi bisaab bi ak naaji bi ñooy mujjee moo boo demee bay baaram nga ko ciy def nga xam ne dangay bàyyi sa kàddu lu muy bax maan instant boobu ngay dem jël sa ceeb tànn wala nga bees ba mu set bu setee après nga sebet fekk def nga sa yooyu yi nga xam ne ñooy jëm ñooy ñëw kii bi xuluñe beeg géej ji beeg yooyu léegi boo sebetee fekk sa kàddira ngay baare le temps que ngay sebet bay wicc sa ceeb ba pare sa légume bi dina ñëw léegi su ñoree nga mos sa xorom boo mosee sa xorom ba mu baax après nga ñëw seppi sa jën ak sa légume jën bi ak légume bi nag man su may seppi duma boolee damay ber bu nekk à part parce que su may rënd mooy gën a yomb si ma su ma defee sama jën à part def sama légume à part ba pare teg na li ëpp sama seppi daal di jël sama ceeb teg temps bu ma tayee sama ceeb si laay jël sama daqaar dindi defar ba mu baax day def si kii bi seen bi parce que jën moom bu dëgg ñu taan njaay day am ceeb jël bopp bi yeeg ñoom seen def léegi boo tayee ba pare boo tayee ba mu suus nga tey mu sox xorom xool ba yëpp baax nga sa ceeb ba xamante ni boo ko sóoree ceeb bi doo am ay doom yi ci biir nga yàq sa xorom après nga jël sa ceeb sóor boo sóoree wàññi sa sa tàkk bi tax taal bi bu ko defee tàkk tàkk bu yem rek bu ko defee ceeb bi dinañ ñëw ñor bu yomb te du am fooñ bu bëri man daal ceeb moom li ma koy toogee yomb na ci man parce que ba ma koy jàngal dama ko nangu woon jàng ndax maa fàttu bi ma koy jàngal mettiwul ci man lu tax mettiwul ci man sama maam moo ma jàngal te bi may jàngal dama bëggoon jàng bi ndax xam naa ni jigéen su teelee man toog teel man liggéeyu kër noflaay la ci moom sama maam wax ma loolu ma def ko sama bëgg-bëgg teel ko mën bi ma ko yàlla wërsëgalee mu nekk fa ak ay rakkam ma teel ko ko jàngal mu nangu ko mën ko jàngal ko ay rakkam ba ay rakkam yu mën ko tey fi tey bi mu amee doom c'est normal que mu jàngal ko fa jaarale ko fi ma ko war fi ma ko jaarale mu jaar fa doomam jaar fa loolu moo sama bëgg-bëgg te moom la ma te xam naa ko defee tey bii waaw ma si benn xel ñaar. ceebu jën bi dama koy toggee noonu la ko sama doom di toggee su su ma toggee su ma génnee waañ bi. Mm, bu toogee day mel ne ko mën maa toog ñu ñaar ñoo yem même ni ñuy toogee amul amul benn parce que ni ma sama yaay jàngalee eh, noonu laa ko jàngalee noonu sama doom boo dee togg ceebu jën ak ceebu jën mu jaar ca na mu waree soo taalalee ba sa kàddir ba boo gayee ba sa kàddir boo dee seppi xepp ceebu jën ba dafay tas te li ñuy wax naan lii de xeeñ na am ñu ci def seen xel am ñoo xam ne nooyi nañ ko te bu doon seen sago ñu lekk ci nga togg ka mu bare nga yekk ci jox leen maanaam togg la boo xam ne ndar bi mu juddoo màggee na fi dem ba nga xam ne tasaaroo na ci biir réew mi waaye bi muy tasaaroo ci biir réew mi fenn fu ne fu mu dem dafa am ñoom nuñ koy toggee waaye bu ñu ko yekkee rek ku tiim ceebu jën nga koy tuddee plat yu bëri nag amuñu chance boobu loolu moom moo tax ceebu jën nekk plat boo xam ne dafa démocratique maanaam moom euh, boo fekkente ne am na légumes yu manqué sax boo ko toggee boo ko yekkee bu amee ceeb ak jën rek mm-hmm. ceebu jën lay lay waaw bu fekkente ne tooyul kon nag loolu moom mooy mooy mooy ceebu jën mu it ñam woo xam ne euh, niñ koy waxee euh, ñam la bu yaatu ginnaaw. ceebu jën penn mbay laa lekk tey ndax li ma ko firndeel dama nga xam ceebu jënu penn mbay ba ko togg rek ma xam ceebu jënu penn mbay nga lekk. ceeb bi nag gis naa ni jox nañ ko axam ndax ceeb bi woowul. Mhm. ba mën na sonal. nooyul ba tooy ba nga xam ni bii da naan dafa tooy. ceeb bi dafa dugg doomu. ba nga xam ni boo koy lekk doo sentir ni dana la gaañ ci dara te day bànneexu lekk ndax ceebu jën mooy cislaayal ndar doomu ndar bu doon signé tey man toogu ceebu jën mooy signature la mobilisation exceptionnelle de toute la communauté de toutes les composantes de cette communauté montre la détermination d'une communauté à partager avec le monde un art culinaire inventé par ses enfants, mais portée par national qui est euh, lii nag di ceebu jën fekk baax fii baax fekk ko fi askanu Sénégal ko moom ku ci bëgg wàll si nag ubbil nañu la bunt boo bëggee ñu toggal la won la jox la nga lekk ba pare bàyyi la nga dellu sa réew. man daal sama xol sedd na trop maam xaw ma sax lan laa lay wax. léegi man ndax sama sët ñëw ci man. waaw gis nga kon alhamdulilah. léegi nag dama la andiloon benn teraanga bu ndaw rek. comme xam naa ne yow da ngaa bëgg a guro. Mm-hmm. ma ni xaaral ma jox la ko. Ah. wala na ne kontaan naa la symbolique de la kola renvoie à ce désir du Sénégal d'offrir à l'UNESCO ses noix de la paix. pour, au-delà de la convivialité offerte, au-delà du partage qu'offre le Tchéboudjen, sceller la paix du monde et inviter le monde à faire de ce plan national un patrimoine mondial. Massamba Gueye ci jamono yi nga xamante ni ñu ngi défendre dossier wu Sénégal ci UNESCO pour que euh, ñu euh, classé bu jën patrimoine immatériel euh, bu UNESCO ça fait buzz Euh, sur internet euh, démb bi yëpp tout le monde en parle au-delà des média standards muy rajo wala muy télé mais euh, presque internautes yëpp ils ont eu à faire des posts concernant ceebu jën mi nga xamante ni am na place bu baax j'ai di tantôt que pour un rien sénégalais kontaan mais c'est bien ya y a yoo xamante ni quand même mën na jaay suñu dëkk on parlera d'ailleurs ceebu jën ak li mu am démb ba sénégalais yëpp kontaan beaucoup d'internautes on commenté et post ay platu ceebu jën yu weex yu xonk yu zone yenn saa yi ñu safal ko ba mu xaw a euh, ba mu xaw a rose voilà tellement de ci jën on a eu à voir ba UNESCO euh, ci boppam euh, def na tweet n'est-ce pas Mamadou Ndiaye tu en parleras tout à l'heure ci ce journal du web voilà euh, El Hadj ni nga ko waxee c'est exactement ça beaucoup d'internautes mais surtout des personnalités euh, ñoo xam ni xam nañ leen siiw nañu am ay comptes Twitter yu euh, crédible UNESCO gis nga ko gis naa tweet bu yu Ndour gis na président Macky Sall d'ailleurs def na ab tweet ci li nga xamante ni la def ceebu jën national ni ko nigérians yi di ñuy waxee naan ñu jollof rice jollof rice nag du jollof rice mais ceebu jën la Euh, loolu rek la ñu ci kanam xam naa dañ ci ñëw gën ko yaatal ndax internet yu bari joxe nañ ci seen xalaat am na sax ñenn ñu ci posé question naan e après mais gën day gën a rendre euh, visible mais surtout yokk suñu crédibilité mais indi gën a indi ay touristes fii ci Sénégal ci kanam dinañ ci wax dinañ waxtaanee aussi démb li nga xam ne annoncé woon nañ ko mooy mbirum natt yi xew ci internet. dinañ ci waxtaan mooy tontine point 0 yi nga xamante ne fi mu ne nii mooy lëmbee internet bokk na ci li xew ci biir internet bi ci kanam ci kanam élage dinañ ci ñëw dans tout ça daal di koy gën a détaillé ak li xew ci biir internet bi à partir de 13h45. élage euh, voilà ok dama la déggul woon bu baax. mais on va ah. on va te on retrouver euh, euh, ci ci ci kanam donc dafa am ñu naan et après ñooñu ils n'ont rien compris. <laughs> am na am na ñuy wax laajte poser question yooyu quoi naan après bu ñu bu ñu bu ñu yóbboo ceebu jën def ko patrimoine et quoi. dañoo xamul. mais xam nga. ndarga euh, mu ndarga mu fekk baax sax bokk na ci patrimoine yi. oui donc yooyu day bokk ci yiy jaay dëkk. Euh, mais c'est des points yoo xamante ni euh, li mu mën a aboutir mënuloo ko sax xam xam naa ñooñu ay xale rek. am na am na benn vidéo. Mhm. bu El Hadj suñu suñu papa Golbert Diagne buy def buzz ci réseaux sociaux yi xam naa ne après dinañ ko ñëw gën ko woon présenter internautes yi. xanaa grand bal la woon. waaw muy détaillé bu baax ceebu jën. ok waaw comme ni ko professeur Massamba defee nii. mais a pas eu que docteur Massamba Gueye ah. même euh, Juan Gomez bu radio France Internationale defoon na ci appel euh, sur sur comme il fait tout le temps. Mm-hmm. question bi mu doon laajte par rapport ak ceebu jën mooy cette demande a-t-elle une chance d' aboutir mm-hmm. dernière la ko laajte woon a eu beaucoup d' internautes qui avaient réagi ci radio France Internationale. Mm-hmm. y' a pas que waa RFI j'ai vu hier aussi suñu ab document bu xaw a gudd mhm. euh, jëm ci euh, ceebu jën on mettra ça d'ailleurs ñu ngi ko mhm. tuddee saveur d'ailleurs le ceebu jën sénégalais comme quoi euh, j'ai dit tantôt am na ay mbir yoo xamante ni ndaw na peut-être xam nga xef moom doo ko gis parce que daf la jege xam uh-huh. naa ñi naan et après loolu moo leen dal mais lii am na solo parce que sa permet quand même aux autres pays de parler du Sénégal ils savent pas que yenn saa yi nga dem ci dëkk ne sénégalais nga ñu ne la fu foofu Uh-huh. ci ngay xam ne doo dara. mais am na ci xam ne yaa gën a minuscule yow ak sa dëkk. Uh-huh. ci àddina. Uh-huh. il t'arrive de rencontrer des gens tu le nga nga ni leen euh, man sénégalais laa ñu ne la oh, Sénégal euh, fan mooy Sénégal. voilà donc yii c'est des c'est des petits trucs qui peuvent vendre le pays. am naa ci benn anecdote benn mm-hmm. confrère nigérien. Mm-hmm. bu ma mës a laajtee ne ma ñaata millions d'habitants lañu quoi. moo xoo mm-hmm. mu ne ma yéen seen mbir bu métti bi yëpp yéen benn village yu côté euh, Nigéria rek. dëgg la moo leen ëpp. am na ci ay capital yoo xamante ni ñoo ëpp réew mi. dëgg la. moo tax bu fi waay euh, li fi waay di def rek na réglé te xam ne dëkk su ndaw la waaye dëkk su ndaw soosu nag bu jën jaay na ko démb ndax partout dans le monde. Euh, eh on a parlé donc de ce euh, de ce beau pays qu'est Sénégal merci Mamadou Ndiaye. Mm-hmm. et à tout à l'heure ay kaddu docteur Massamba Gueye laa bëggoon ñu dégluwaat ci wolof mu seqoon ko ak rajo Futur Média. tubaab bi ñëw di fi indi ceeb dafa ñun suñuy maam dem dëpp ko fexe ba moomal ko seen bopp di ko defee noo xam ne keneen mënu ko defee neneen maanaam xarañteef googu moom lañ doon wane ci toggin wi ci ni muy lëkkalee ay ay askan yakkalee ndab bi ñu ko daan taajee maccaat ñu ko daan tegee la fa nit ñi daan wax ak lañ ci daan defaree nit ñu ko daan jàngalee lekk tepp ceeb boo tuur ñu wax la ne la danga ko war a for yar boobu daan ànd ak ci ci ceebu jën loolu mooy solo si li ñu bëgg mooy ñu xam ne ñun mën nañoo togg ba nu xam ne ëllëg lii di laax lii di ndambe lii di <laughs> euh, Kouthia beneen ndam ñam bu ne war nañ ko mën a protéger donc buntu la rek ngir sunu lekkin ak sunu yi lekk ak cosaan ñu gën ko ful ci yóbbu ko nag ci daara def ci ay conférence def ci ay film documentaire ba mu gën law. voilà donc c'est ça la réponse pour euh, ñuy wax ni et après euh, ay kàdduk docteur Massamba Gueye euh, xam-xamam màcc lool ci wàllu aada ak cosaan donc moom bokkoon na ci scientifique yi nga xamante ni ñoo doon défendre dossier bu Sénégal je disais tantôt que il y a longtemps Youssou Ndour bindoon na ab livre tuddee ko Sénégal la cuisine de ma mère la cuisine de ma nag dafa yaatu waañu yaayam la dugg livre yaa sa yaayam ceebu jënu yaayam daxinu yaayam ceebu jënu yaayam yooyu yëpp nag ça a été détaillé il y a très longtemps un très livre avec euh, vraiment de très belles euh, e livre boobu noonu moo jur euh, keroog 2013 mu jékki-jékki rek dagg mool dugal ca biir façon bi mu mën a toggee ceebu jën diggante yoo xas ak paañ ak tuufaak yu baax yooyu nga xamante ni euh, boo demee jawbe am ko fa fii ci Sénégal it euh, marché yi euh, ñu ngi jaay yu baax mais bon ceebu jën li muy neex yëpp ingrédients yeeg ñamatoo si ciy dem saa yu ñu xëyee mu gën yokk ceeb seer na carotte seer na bi seer na batañse seer na yomb mi nga xam ne ñàkk na xorom xeetu ñàkk xorom goo xamante ni tam xarit bu jot le lendemain day fees dell ci mbalit yi moom sax dafa seer léegi voilà comme quoi les temps sont durs dans tout dans, dans presque toute chose mais terewul ceebu jën euh, reste quand même euh, notre plat national la preuve euh, au lieu de vous proposer ce que euh, suñu ay confrères yu RFI euh, def ci waa France Télévisions plutôt Apulaay la bëggoon nga tegal téléspectateurs yi pour leur montrer que encore une fois lu ndaw mën na jaay dëkk regardez Dans la ville de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, les habitants veillent sur un trésor. C'est ici qu'est né le Thieboudienne, ou riz aux poissons. Fatimata Ben Messaoud en est l'une des plus farouches gardiennes. Comme chaque semaine, cette Sénégalaise de 49 ans choisit minutieusement. Elle s'étend sur les rives de l'océan Atlantique et du fleuve Sénégal. La majestueuse Saint-Louis, ancienne capitale, qui se transforme à l'heure du déjeuner en cuisine, à ciel ouvert. À l'ombre des ruelles, à même le sol, Ces femmes s'activent, elles préparent le plat. Incontournable ici. Je suis en train de manger le thieboudienne. C'est bon, au Sénégal, on adore ça. Ce plat n'a pas d'égal. Je ne jure que par ça. J'en mange depuis que je suis né. Thieboudienne veut simplement dire riz au poisson en Wolof. La fierté des habitants. Le Thieboudienne, c'est ici son histoire. Quiconque veut l'imiter devra s'inspirer de nous. Il a été cuisiné pour la première fois ici, à Saint-Louis, en pour le gouverneur de la ville. Tous y ont ensuite succombé. Le Thieboudienne, c'est notre plat préféré. pour nous.

À Saint-Louis, ils sont des milliers comme lui. La ville abrite le plus grand quartier de pêcheurs d'Afrique. 30 000 tonnes de poissons y transitent chaque année. Chaque jour, je pars en mer pour pêcher. Parce que nous, on mange le poisson frais. On le pêche et on le mange le jour même. À peine de retour de sa pêche, Allez, on remonte, on s'y met. Il faut que la pirogue remonte. Allez, ah, allez. Ah, ah, Une poissonnière attend déjà. Elle va lui acheter tout son stock. Allez, donne-moi 15 euros. 15 euros, ça ira. C'est du bon poisson pour le Thieboudienne. Ça va bien se vendre au marché. L'immense marché de Sors, c'est le point de départ des cuisinières. comme Fatima Ben Messaoud, à la recherche des meilleurs ingrédients. Un bon thieboudian commence tôt le matin pour pouvoir acheter les légumes les plus frais, du bon poisson et commencer à cuisiner tôt. Au fil des allées, le panier de Fatima se remplit. Du chou, des carottes, des aubergines. Mm-hmm. qui finiront dans la cour de sa maison. Aujourd'hui, elle prépare en famille du thiéboudienne rouge, celui avec des tomates. Ce que je prépare, c'est du rof. C'est de l'oignon vert, du piment, du poivre, de l'ail et du laurier. Je le mélange avec du sel pour pouvoir farcir le poisson. Ça donne un bon goût. Ça fait partie des secrets du thiéboudienne. des secrets que chaque Sénégalaise doit connaître avant le mariage, selon la tradition. Kibi, doucement. Il faut pas que ce soit trop cuit. Il faut pas que ça brûle. Et déjà, Fatima les enseigne à la nouvelle génération de la famille. À 8 ans, j'ai commencé à apprendre les bases. Comment couper les légumes, comment piler les piments. Et à 12 ans, je savais déjà très bien préparer le thieboudienne toute seule. C'est comme un héritage pour nous. Après plus de deux heures à mijoter, le plat est enfin prêt. Venez manger. Où sont les cuillères Et le thieboudienne, ça se partage. Famille, amis, voisins et même des inconnus de passage. L'hospitalité, c'est ça, le thieboudienne. Quand on voit ça, on est fier d'être sénégalais. En février, le ministère de la Culture a déposé un dossier auprès de l'UNESCO pour faire reconnaître le plat comme patrimoine immatériel de l'humanité. Réponse dans quelques mois. Si le dossier est validé, le thieboudienne sera protégé, définitivement reconnu en tant que trésor national du Sénégal. Voilà, et c'est fait depuis hier euh, un reportage réalisé par nos confrères de France Télévisions euh, qui raconte que ceebu euh, jën euh, ñoo ngi ko togg pour la première fois en 1830 euh, c'était il y a très longtemps tubaab bi nu ñoo fi dugal ceeb loolu itam nañ ci bàyyi xel bi ñu fi dugalee ceeb magi ndar yi fexe ñoom Penda Mbaye fexe ba créer ci recette looloo jur ceebu jën donc ñu défendre ko ba mu nekk euh, patrimoine euh, comme ni waa Italie euh, amee pizza napolitaine muy seen patrimoine Belgique ñoom beer bière <laughs> ñoom beer mooy seen patrimoine ça peut rigolo pour certains mais ça a tellement de valeur pour vendre un pays la bière belge et puis euh, voilà ak yeneen spécialiste culinaire par exemple couscous marocain Euh, ñun couscous couscousu dugub bi la ñu xam mooy suñu cere waaye ñoom seen couscous itam euh, bokk na ci euh, patrimoine yi donc une décision appréciée par tous les Sénégalais bu ca kanamee bu benn waxtu jotee ñu ànd ak rédaction bu télévision Futur Média lu ko mooy bu weesoo sax rédaction bi mën ngeen di continuer di xool suñu site internet di www.igfm.sn maam fàtte ngoogu ci kanam on retrouve su ma la su ma la gisee ree su ma la gisul jooy. <laughs> Pape Cheikh namoon naa la. mais jëng jëng jëng jëng ragaloo de jëng. jàll jéeri jëng temps yi temps yi sa sañ say sañse lan la. kan mooy jàpp ci sa combat aussi jëng. topp sa rek Pape. parce que lii moom du Modou Fall moom <laughs> Modou moom leer na ma ni amul jotug di xëy di la tànn ay ay toof yoo sol ak loo toilettoo lii moom sa liggéey la maam fàtte tey ku jaar fi. <laughs> ah. Fimo Fimo. Fimo de xaw ma ko parce qu'en fait on reçoit tellement de commentaires beaucoup de téléspectateurs qui nous demandent mais Faty Dieng wala naata ñii di journal seen télé bi lu ñu sol. Euh, mais comme yéen vous ne faites pas de euh, euh Faty est euh, on peut en profiter pour pour donner des des mbir yu intéresser ces personnes qui regardent et qui apprécient ce que vous mettez xam naa naa joxe numéro Mimo wala Imo. ah Fimo Fimo ah Fimo d'accord ouais. en tout cas belle. Euh, la tenue merci beaucoup bu ca kanamee benn waxtu euh, di nga yaatal xibaar yi lan nga fas yéene développé Fati. Pape Cheikh bokk na ca euh, liggéeykat yu poste yi xëy tey daanaka wàññi seen liggéey ndax nee ñu daal dañuy ànd ak naqar wala di ko séddoo ak moom seen ab naataango yu Fejoor mu ne daal danu ko daal di xaw sonal xeet xupp ak ci biir bërëbu liggéey. yëglekaay ba sax la ko dundee directeur général ba euh, di Abdoulaye Bibi Baldé fas yéene jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi tey jii ci ngoon beneen mbir itam Pape Cheikh muy mbiram euh, coowal université euh, université yi fii ci Ndakaaru xam ngeen ne démb heure bii ña nga doon jàmmaarloo moo xam Bambey la moo xam Ndar la wala fii sax ci Ndakaaru ndax ndongo yi dañoo bëgg daal ñu indi ay leeral ci faatub seen naataangoo boobu ñu ne ñam bu mu dugal ci biram moo ko yóbbu barzaq ba noppi itam ñu ne ñu bàyyi euh, seeni ñoñ ñu ñu teg loxo euh, di leen toppee euh, ak la fa xewoon ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi pap Cheikh nekk ci biir daara ju kawe ji rawatina ca Bambey ju génn fa ndax du seen place yooyu yëpp di ay ponk yoo xam ne fas yéene nañ koo faram fàcce ñu delloo la leen xam naa fii ak fukki simili ak lu teg ñu dellu si waat gën a faram fàcce bu ca kanamee lay doon benn waxtu des na daanaka ay minutes pour mu jot exactement midi 48 mooy doog a jot ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Mame Faty laataa ngay journal man itam ma profité ci émission bi joxe ay xibaar yoo xamante ni mën na leen a soxal euh, puisque miin ngeen cocktail bi ma fàttaliwaat leen ko information la ak divertissement merci pour virgule boobu noonu sa fait rien Apulaay puisqu'on est avec Orange euh, dans Midi Plus am na xale boo xamante ni mu ngi am fukki at ak juróom moom nag euh, mu ngi doon jàngee euh, ci ab école bu nekk ca euh, Wakam ñu tuddee ko CM Wakam moom nag bi muy EPS ci la faatu faatu goo xamante ni waxuma ndongo yi nekk ca l'école boobule waaye waaye juróom ci boppam mu ngi naqarlu yéex a ñëw Sowétas loolu moo tax mu ngi dénoncer lenteuru secours yi ngir ñu jéem a wàllu doomam xale bi nag mu ngi nekkoon cinquième Demba Baldé mooy bàyyi xale bi ñu déglu ay kàddoom ci micro Habib fay ma laaj ma jëndal ko kaye ma ko kaye ak ndekki ñu dem mu ne la yor la ñuy def ma plus grande surprise benn xale moo daw mooy xam naa ne dafa bokk ak ñoom classe daw ci école bi ma nekk mu ne ma Bakary daanu la ma dem fekk ko ci ñu tëj ko ci benn néeg ma xuloo ak ñoom pour ma génne ko ma menacé leen sax ma leen kii bu dee dama leen di porter plainte parce que hôpital baa ngi nii même miir bii moo nekk suñu diggante bu amoon loolu ngeen yóbbu ko hôpital ma fekk ko fa bu dee ñoo am ne loolu ndogal yàlla la mais manul am lii les premiers secours n'ont pas été faits te yéen ñëw leen am ngeen ma xam ngeen sama adresse ngeen laaj xale yi bu fekkee am nañ sax parce que ils ont les fiches ils ñu ñëw ci sama kër ñu ne ma diw wala ñu transporté balaa loolu ma fekk vraiment def def na leen defuñ lépp noonu la xale bi gaañoo ci seen lox nekk ci biti ma ne ko c'est pas aéré boo defee nit bu am problème de respiration ci biir nekk kon day dee. moom si waaw. ba noppi. pas parce que j'ai pas lu jànguma autopsie léegi léegi lañ ñëw. yàlla na ci kawam ab xale la boo am euh, fukki at ak euh, juróom doon wuyoo ci turu euh, Bakary Balde moom nag mu ngi amoon fukki at ak juróom doon def cinquième papaam waaye juróom bu góor lañ doon déglu. Euh, mu doon joxe xalaatam ci euh, faatuk doomam jooju le nga xamee ni bi muy EPS euh, éducation sportive ci la faatu moom nag naqarlu na lool yéex a ñëwuk Sowétas souvent ça arrive waaye am na ab dogal la bu xaw doy waar ñu ngi massawu famille am yëpp waay juram ak ay bokkam ak it élèves yi nga xamante ni ñoom la bokkaloon école boobu la di CM Wakam nekk ca Wakam bien évidemment laataa fàtti du journal mu profité ci jox leen ay information yu am solo on va reparler de cette affaire de trafic de visa fan yëpp daanaka moom la euh, réew mi yëpp yi waxtaanee traficu visa yooyu la astafurla passeport diplomatique plutôt euh, ginnaaw euh, ay député yii di Amadou Sall ak Boubacar Biaye am na yeneen i agent yu nekk ministère des affaires étrangères yu ñuy joxoñ baaraamu tuuma di leen taqal ci coowal passeport diplomatique yooyu la ki di euh, Boubacar Seye euh, président wu Horizon Sans Frontières euh, nee na il faut que provisoirement ci ndégg ni ñu dakkal joxe document boobule ñu tuddee passeport diplomatique Marcel Maroun lañ ci àndal. bu gàtt processus joxe passeport diplomatique ci Sénégal loolu rek mooy solution. ngir fexe ba dàkkal fi lu jëm ci traficu boobule document. il faut que état du Sénégal le plus rapidement possible mu def un communiqué pour annuler provisoirement. les passeports diplomatiques le temps que ñu xoolaat le critère de valeur les critères d'objectivité d'obtention de ces de ces documents là parce que du document boo xam ni tamit ku ñëw rek ñu jox ko ko loolu la ñu war a xoolaat leeral ko parce que même soo ko recadré dans le cadre des des migrations internationales tey ñu naan les passeurs dañu dem ba nga xam ni dans la lutte contre l'immigration clandestine léegi euh, ki bëgg a tukki euh, danaan taxal ma dem assemblée ba wax ñama fa xam pour ñu. Euh, ñu créer benn mariage fictif wala ñu créer benn alibi pour ma yore ko mais loolu c'est extrêmement grave. trafic passeport diplomatique moom mu ngi gën di yàq deru Sénégal ci àdduna bi bu ñu delloo ci ñaari at ci ginnaaw Union européenne mu ngi doon critiquer état bi ci wàllu boobu loolu waral ñuy laaj waa justice. lan mooy mission la fonctionnalité d'un passeport diplomatique moom mooy dafay assurer la fluidité des actions de l'État dans les relations internationales cest à yi Euh, mu mu mu gaaw bu fekkee yow état daf la yónni loolu moom mooy mission c'est la crédibilité de l'état c'est la crédibilité même euh, de notre appareil judiciaire te dina am des impacts même sur la migration régulière parce que tey di nga gis doomu sénégalais dina wàcc ci àddina bi ñu koy toroxal parce que dañuy dem ba nga xam ni kenn wóolootul Sénégal. ñuy fàttali ne ñii di waa dikk jeexal nañ enquête lu jëm ci wàllu trafic de passeport diplomatique fu mu ne nag. ñetti nit la ñu placé woon garde à vue ci ñetti ñooñu ñaari agent bu ministère des affaires étrangères yi nga xamante ne depuis aljuma la ñu nekk dikk chancelier bii di Amadou Kébé dañ koy seet fu mu nekk nii ngir jàpp ko bu ñu sukkandikoo bi yoon ci waa Libération waaye amicalu chancelier des affaires étrangères bu Sénégal daal di weddi boobule information di fàttali ne kii di Amadou Kébé bokkul sax ci koowu chancelier des affaires étrangères bu Sénégal jërëjëf Marcel xeese euh, booy yéen a ngi koy séen ci euh, info matin ak rédaction bu télévision Futur Média mu ñu doon gëstul euh, ci euh, coow loolu ñu tuddee affaire euh, passeport diplomatique ñu ci joxoñ baaraamu tuuma yeneen ni nit yu bokkul ak ay député ñu nekk ca fi nga xamante ni moo di ministère des affaires étrangères ñu doon déglu Boubacar Cheye président Horizon sans frontières du ñàkk ñu ñëwaat ci ci jotaayu xibaar diggu bëccëg gi nga xamee ni bu ca kanamee tuuti dans quelques minutes dañ ca ànd ak Fatou Diagne mi nga xamee ni moo ñu baaxee ay titre am sànq midi 54 mooy. doog jot jot na nag ñu accueillir euh, invité bi waxtaane Guédiawaye football club muy Guédiawaye FC euh, pendant que ñenn ñi di naqarlu euh, violence yi ñu seetlu ci stade bi ak ci arène bi ñun on va recevoir vraiment équipe yi nga xamante ni dañuy dox tout le temps ci non violence li leen soxal mooy gën a ñoñal seen liggéey ba club sport yi ñu am fii Sénégal mën a mel ni PSG par exemple ou ces autres clubs yi nekk bitim réew ba nga xam ne ni ñun bu ñu bokkul ci seen ñoo dàq consommer euh, le club yooyu proposé ci wàllu football loolu nag dafa dal waa Guédiawaye football club ainsi que d'autres clubs waaye tey on reçoit waa Guédiawaye football club ils sont entrés euh, ils sont en train <laughs> maa ngi wax bëgg tontu corombaar Ndiaye mi wax ak man maanaam man mi tëgg tama la bëgg ma wokkatu en même temps man mi animer émission bi la bëgg ma jóg dem jëli invité bi teg ko te subaak léegi maa ngi saraxu réalisateur bi pour mu tegal ma invité bi mais comme invité bi ñëwagul ma àggali présentation bi donc loolu tontu la pour Coro Mbaar mi nekk fi ci sama nopp bii di ma reyek woo nga invité bi parce que dafa dootam ba yàq woo invité bi yow nag comme da nga maa yéene tëgg tama di wokkatu en même temps amul benn problème man de toute façon j'attends l'invité qui va nous rejoindre dans quelques minutes ci plateau bi pour parler euh, de ce que propose Guédiawaye FC ñu ngi waaj def lancement wu euh, seen site web et puis bis boobu sax day amaale concert on va en parler ñu ngi nuyu waa Guédiawaye ah man am naa fa trio c'est vrai que ñu ngi ci période boo xamante ni tànn sa bu la neex la lii lébuy naan aw aw la may woteel maa tey aw la may woteel dëkk bu ne am nga koo fa mën a woteel nag waaye man damaa am trio boo xamante ne mu ngi géejewaay muy Alioune Sall euh, euh, sama directeur bopp Lat Diop surtout Lat joor bi ak Lat Tall Kodou Mbaxe nee na Fatoumata Tall ministre de la jeunesse ñoom ñett nag dinañu dajaloo xam naa ci mbir moomule plus que euh, dañoo bëgg géejewaay et que waa géejewaay football club ñu ngi préparé donc lancement wu seen site web on va en parler dans quelques minutes ou tout à l'heure après journal bi en attendant on enchaîne avec de pub tout en vous que euh, mën ngeen a profité pour bégal seen ay doom grâce ak Kids Palace biir Kids Palace nag ibbi nañu fa euh, jouer ça jour dakaar oui c'est vrai que euh, ça joue dakaar dafa neexee dafa woyee ça joue dafa jouer jouer ça joue Dakar dafa foowee noonu mu neexee noonu noonu ngeen amee possibilité bu ngeen demee biir Kids Palace fekk fa magasin boobu la nga xamante ni marque yu mag yëpp yu mës a defar ay jouets pour xale ñoom dañu fay jaay seen ay euh, seen ay jouets et puis ce top Euh, jamono neexul mais ñeenti téeméer boo ko amee sax paplam euh, bu la neexee nga dem Kids Palace bégal xale yi mën nga euh, am satisfaction grâce à ces jouets qualité que Kids Palace propose aux enfants et puis y a un tombola bu ñuy amal fii ba le 25 décembre tombola bi nag bu ngeen ci bëggee bokk sur place lay amee maanaam bu ngeen demee am na lu ngeen di remplir pour seen ay doom yu am moins de 12 ans et puis lii xale bi mën a gagné mooy sac yu xonk yu rëy yooyu nga xamante ni Père Noël moom lay gàddu def ci ay jouets loolu ngeen ko gagné grâce ak tombola bile euh, ñuy amal ca euh, jouer ça joue Dakar oui ça joue jouer euh, beaucoup de jouets pour des enfants pas chers et avec beaucoup de qualité disponible chez Kids Palace juste vous donner l'adresse avant ñu leen di proposer publicité bi donc Kids Palace mu ngi nekk zone de captage côté EMG numéro téléphone bi di 76 300 euh, 233 euh, 223 stafurla 223 37